ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne jamono ji la yéen ñuy seetaan file ci Allo Dakar euh, TV euh, tey nag nee naa li ci xel yi beneen numéro file ci Allo Dakar TV ak kenn ki nga xamante ne

Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam wa rahmatullah wa soxna Mariama ñu ngi lay nuyu di nuyu wa ñi nga andal muy wa Allo Dakar TV ñep rek di kontaan ci set si bi nga xamni set ci ngeen ñuko wa ah, man ma ngi seni lum dekk lu Louga nek Maroc. lum dekk lu Louga nek Maroc mais seni bala bala bala may wéyandi mais amna luma sétlu bala may wa ci immigration eh, tuddu lu tudd lu Louga bari na ay immigré de. waaw Louga boo gisee mu bëri immigré parce que Louga moom vraiment doomu Louga ci tukki lañ leen xamee ndax booy xool Ndakaaru presque doomu Louga ñoom ñoo fi ëppoon kon presque li génn lépp ci doomu Louga la ñoom moom yàlla moom moo leen euh, nattoo tukki daal waaw loolu daal laa ko mën a jàngate lan nga lan nga ma mën a wax ci tukki. waa tukki nag moom jihaat la. tukki moom dafa metti waaw parce que muy man muy sama morom képp ku tukki amuloo lu la neex ndax ku sañoo na da ngay toog di gis sa famille di gis sa soxna mais boo xoolee ñun ni ñuy tukkee génn boo xam da ngay génn presque di nga am àll an wala deux ans boo dikkee dëkk bi nga dëkk doo am sax mois wala deux mois delluwaat metti na trop ku ni la neex naa tim daf lay nax waaw. metti na lu tax mënoo toog fii nii comme que dafa metti. waa xam nga bu ñëpp rek dem am. te tukki dafa bokk ci programme sunu borom ah immigré dafa bokk ci programme sunu borom ndax métier la boo xam ne tey même boo ko defee boo ko deful toog ci tëkk bi nii peut-être li nga mën a am lépp di nga ko am mais boo génnee ngay gën a yaakaar ni sa wërsëg fa la loolu moom moo waral ñu bari di génn daal. kon daal génn gi am na lu ci nekk. waaw bari nañu bari na lu ci nekk ndax tey boo amul xaalis di nga am xam-xam te boo génnee ba dikkaatatim di nga xaw a wuteeg ñi fi nekk daal di ngeen am changement bu rëy daal seen biir. changement boobu ban changement la changement ci koom-koom wala changement ci comportement wala ban changement. waa changement bi boo xoolee tey Sénégal laay wax Sénégal boo ko tabaxee ba mu egg mën naa ni la genn wàll yëpp immigré yi ñoo ko fi def dëkk yi ni dem muy bu doonee Italie wala France fu mu mënti doon immigration yi ñoom ñoo ko defar ba tax mu mel ni mu war a mel bon génn bi daal gis naa ci njariñ daal. gis nga ci njëriñ kon yaa ngi encouragé jeunes yi pour ñu génn. wa dina len encourager ñu genn mais d'une part parce que timit genn dafa am yoon ndax bu njëkk bo daan genn da ngay wacc genn dem ci yoon wu leer mais dañ nekk ci jamono jo xamni tay dafa jaxaso ndax tukki bi ni tukki tim bari na ci tay ño xamni ñi ngi dem mais pour ñu dem ci yoon wu leer moom moy problème dal mhm. yoon bu leer moy parce que gis nañ fim mu gaay ñu ngi mbëkk ñi ya ngi jël gaal di dem ñi ya ngi koy dagge dagge comme dañuy dem ba nga xamanteni ne dëkk bi nga nekk muy nee ma Maroc nga nekk dañuy dem ba Maroc jaar ci suuf ba après bu ñu àggee Maroc jël gaal yi daal di dem ñooñu loo leen di wax. waaw loolu digaluma ko kenn digaluma ko kenn te it képp koy defatim dama lay conseiller pour nga jéem cee génn mais ñi nekk Sénégal bëgg a tukki ñi leen di nax ñi leen di nax pour génn leen jéem leen génnee ay sénégalais lañ comme ñoom te it euh, nit itam am na nu muy comporté woo yow wala mu am lu mu lay wax wala mu am lu mu lay wan pour mu nax la ci li nga bëgg day yomb mais nag képp koo xam daal da ngay tukki li ma lay ñaan mooy. nga gis lu leer nga dog ci dem mooy li gën daal. lu leer li mooy bañ a jël gaal gi. non mën nga jël sax gaal mën nga jël sax gaal parce que bu fekkente lu mel ne Maroc lu mel ne Maroc am na ay yoon Soudiak moteur mi ngi fa dégg nga mais Soudiak moteur bi li ngay verser ci xaalis dafay bari. Soudiak moteur mooy lan. Soudiak la ba tey comme ni ñuy demee parce que dafa am ay Soudiak yoo xam ne moom nañ tuddee ay raame raame yooyu noonu dañ koy joow mais tubaab bi bi koy defar daf ko defar pour ñu def ci lu mat 7 personnes am yo xam ay 400 kilos lay doon ay 600 kilos ñu war ci def 7 euh, personnes bi ñu war ci def 12 personnes mais sénégalais yi ñoom ñoo jënd ak seen bop def ci lu mat 20 personnes wara a tukki. moo nekk ñiy jaar ci moo ñooñu fu ñuy si jag moteur moy li ñi nga xamanteni ñoy ñooy jaar ci gal gi. gaal gi ñi jaar ci ndox mi ñoom loloy su jaag moteur wala parce que da loolu la comprendre. xam nga gal dañ nan la gal mais Maroc ku fay tukki ni la gaal laa tukkee a ah, man de yàgg naa Maroc mais gis ma ko ay sujaag modèle